mbokk yi nga xamante ne yéen ngi topp chaîne youtube bi di taxawu sunna ñu ngi dellu si waat yéen seen jotaay bi ñuy amal bis bu ni mel muy alfawaid di njariñu bis bi di ñaan yàlla subhaanahu wa mu defal ñu tawfiq defal leen ko mbokk kenn ku nekk ci ñun war na bàyyi xel mbir boo xamante ni amaana yenn saa yi moo koy faagaagal indil ko lor te du ci def attention mooy lan mooy ñaanu ki nga xamante ni da nga tooñ xam ngeen ki nga xamante da nga koo tooñ bu la ñaanee yàlla day nangu automatique directement yonent moo ko wax de du samay wax nee na ñaanu ki nga xamante dañ koo tooñ dara doxul digganteem ak yàlla benn kiiraay amu fa même bu fekkee ni sax yéefar la naam même bu fekkee yéefar la ndax yàlla nanguwul ñaanu yéefar ngir bëgg ak yéefar wala yaadu billah waaye dafa nangu ñaanu ki nga xamante ni yéefar la bu fekkee dañ ko tooñ mu ñaan la yàlla ngir bëgg gi mu bëgg maandute moom borom bi subhanahu wa taala allah adl parce que yàlla ku maandu la moo tax borom xam-xam yi ni même bu fekkee ni ki nga xamante ni sax yéefar la da nga ko lan da nga ko tooñ bu la ñaanee yàlla ñaan nga day nangu tey ñaata nit ñoo am lorange wala am loo xamante naka sudul noonu la te la leen ko teg mooy tooñ gu ñu tooñ ñu ñaan leen yàlla yàlla nañ ci yàlla musal moo tax bi alayhi wasalaam waxoon معاذ بمي دم يمن نيكو اتقي دعوة المظلوم نغا مويتانديكو ليغا خامتاني موي نيانو كوني توغ مام نغا مويتانديكو توغ باسكو بو توغ نيت بولا نيانا يالا ديريكتومون داي داي نانغو موتاخ توغ بوكوي دافا حرام يالا دافكو حرامال تي بوبام موم بروم سبحانه من يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي wa jaaltu baynakum muharraman fala tazalamu yéen sama jaami yàlla mooy wax ne ci xadis qudsi mu ni dama araamal tooñ ci sama bopp moo tax yàlla du tooñ wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid waaye neen dama ko def seen diggante mu nekk lu xaraam kon nag fala tazalamu bu leen tooñante bu ngeen tooñantee lu ci juddoo mooy lu yonti wax déglul nee na ittaqi daawata al mazlum fa innaha laysa baynaha wa bayna allah hijab na nga ragal yow doomu aadama di tooñ sa moroom ndax ñaanam bu la ñaanee yàlla dara doxul diggante ma yàlla ak benn kiiraay rawaxal buxaari muslim kon mbokk yi nañu wax dëgg yàlla dellu si war xeli yi ana ñaata nit tey ñooy xëy ci tooñ di ci gontu ñun société bi tooñ gi ñuy tooñante suñu biir waaye tooñ yi ñuy tooñ suñuy gouvernement gouvernement tooñ yi ñuy tooñ tooñ yi nga xamante ne moo am société bi kenn ku ne di tooñ moroomam moo xam ci wax la di ko jëw walla di ko fenal wala di wax loo xam nekkul ci moom di yàq deram wala tooñ bi nga xam ne dafa aju ci li nga xamante ne mooy loxo jël àllu nit wala nangam faagagal ko xool agresseur tey ni def xoola maam maam xaddis wala xaraj boo ci doon wax di joxe exemple doo pare tooñ bi am si biir société bi mu nekk lu bari ci biir kër yi diggante way dencante tey tooñ gi ñuy tooñante seen biir ñi nga xamante ni ay wujju lañ tooñ gi ñuy tooñante seen biir kon yooyu yépp ay tooñ la yoo xamante ni ka tooñ bu la ñaanee yàlla ñaan nga lay nangu directement léegi nak ñaan googu nangu directement bro xam comme niñ ko waxe amana en say mu tardé parce que yalla dafa am hikma bo xamanteni motax mu def lool way ñaan nga mom day dal bokku na ci hikma yooyu comme ni ko yéen xam tuddé amana yalla subhanahu taala daal lay leen tendé fal ngir yow xam nga da nga togn ngir nga delu delluwaat ci ki nga xam nga togn ni ko ah, man de dama def nangam na jéggal ma mu jéggal yalla jéggal waye ñaanam mom amul lu dox kiiraayam ak ak borom bi subhanahu wa taala motax tax yonente mu ni fa innaha laysa baynaha wa bayna allahi hijab yonente bi alislam ci hadith abi hurayra mu confirmé war ko ne ñetti ñaan a ngi ni yo xam dañ koy nangu la shakk fihi na la werante amu ci mu ni daawatul walid ñaan gu wayjur di ñaanal dom motax tax loolu lu jar bàyyi xel la moo tax way jur yi deung deung deung ñu wala ñu def nangam nang bu len ñaan yàlla ndax boo leen ñaanee yàlla ñaar nit tey nga gis seen euh, njaboot dëng ñun ko yàlla nga dee yàlla nga def nangam nangam ñaan ko day nangu wala loolu tam orientation la bu ñu yonti waa sam orienté moo tax say doom ñaana leen jub mais bu leen ñaan yàlla subhaanahu wa taala ni ki noonu tamit daawatul musaafir ku nekk ci tukki yonti ñaan dañ koy nangu moo tax ku nekk ci tukki dafa war a profité di ñaan ndax place bi ñu nangoo ñaan ak daawatul mazlum loolu moo tax ñu indi xadis yonti mu ni daawatul mazlum ñaanu ku ñu tooñ day nangu kon nak wax deug yàlla lu jar a bàyyi xel motax borom xam ni même bu fekke ni ñaan nga nangul ci sase mais dina nangu borom bi nak mo xam kañ la koy nangu ndax lépp lu mu def rek dafa am hikma ndax mom moy ki nga moy al hakim subhanahu wa taala kon lolu mbokk yi day joxe wax deug yàlla importance bu nit ki wara may tan maytandiku togn waye tamit danger bi nek ci togn tay amana nga togn nit deug yàlla te baye wo ci xel mu ñaan la yàlla ñaan nga nangu fekk lolu mo lay fagal histoire bi ñi mujjé histoire bu yéme bu yéeme yéeme yéeme amaana tey nga koy doog a dégg wala déggoon ko wala bàyyi waa ko xel Saïd ibnu Zayd ab saxaabi la am na benn jigéen soxna su nekkoon jamono jamonoom ñu koy tuddee Arwa bint Uwais Arwa bint Uwais dafa tooñ Saïd ibnu Zayd mu ñaan ko yàlla ñaan nga nangu déglul histoire bi mu nekk lu yéeme yàlla nañ ci yàlla musal ci tooñ Saïd ibnu Zayd تقوم من حديث عروة بن الزبير الإمام مسلم جينا نكو حديثة من صحيح البخاري مسلم عروة بنت أويس دفع كلامه سعيد بن زيد تقول نو بيجا مو فنكون كنت دي مروان بن الحكم دا كوي دم كلامك نيكو سعيد دفع جلتي سمو سوف نعم دفع ساك سما سوف تاي خول نيات نيت تي اي أكتر دي ساتي اي سوف يو خامتاني يو داي وار تا يانتي مني مون كيب كو خامتاني جيل نا لو توتي لو ci teg ko ci tooñ ëllëg yowmal xiyaam dinañ ko def juróom-ñaari suuf at ko yen waaw def ko toll juróom-ñaari suuf at ko yen fu mu ko fu mu koy attanee kon loolu ab tëkku la boo xamante bu métti la waaye Arwa bintu Uways dafa dem boole Saïd ibnu Zayd te pourtant Saïd deful dara mais daf ko tuumaal ni ko Marwan ibnu Xakam dem ci Marwan ni ko Saïd mi dafa jël ci sama suuf sàcc sama suuf Saïd bi ko Marwan woowee. ni ko yow yaa sàcc suufu jàmbur parce que tuumaal dafa garaaw nag mbokk yi tuumaal yi mooy yàq der la imaginel tey yow nga nekk ku baax ku ñu xam société bi benn jigéen ah dem tuumaal la ni kii dafa sàcc kon lu garaaw la lu garaaw a garaaw la même bu fekkee ne waxul dëgg sax nit ñi dañ commencé duti ci yow kon yàq na deram moo tax yàq der nit ki bu ñu yàqee deram daanaka dootul jar dara ci nit ñi waaye yàlla mu xam na lépp اروى بنت اويس بمكالمه سعيد دم تي مروان الحكم نيكو كي دا فساتي سما سوف سعيد بن زيد صحابي لا يا اخي جوم دا موي ديف لول دغلوم كو سعيد بيكو مروان ووي دا فنيكو ما كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخو حديث بي نيكو نكا لاي ديفه لو نيمل غينا بوما ديغي يوننتي بي ني كيب كو خامتاني جيلنا لو تولو تي لومو توتو تي سوفو جامبور تك كو الله يوم القيامه دي نكو ديف جوروم نياري سوف ات لوكو mu ni Saïd ni Marwan naka lay defee li ginnaaw ma déggee xadis bi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam Marwan ni ko dootuma la laaj ginnaaw tey preuve parce que xam na ni ku dëggu la li muy wax nan lay déggee lii pare di ko di ko def saxaaba yi jom ñu def lool kon Arwa dafa tooñoon Saïd déglu Saïd li mu wax Saïd mu ni yàlla allahuma yow yàlla bu fekkee ni moom mii nii kii nga xamante ni moom mooy Arwa li mu wax du dëgg fa am mi basarha yàlla nga ko teg ak gumba yàlla nga ko rey ci suufam waqtulha fi ardiha parce que daf ko sosal tuumaal ko yàq deram xam nga ñu indi la ba ci gouverneur ci ab amir naan kii ni ab saxaabi indi ko foofu ah di indi ko naan kii dafa sàcc nangam nangam comme tey dañ koy defee di tuumaal nit ñu bari loolu nag yàq der la moo tax def ko ñaanoon yàlla ni ko kii bu fekkee li muy wax du dëgg yàlla nga ba tam yàlla nga ko rey ci suufam. déglu fa ma maatat xatta dahaba sora moom arwa moom ñu ñaanoon yàlla saïd ñaanoon ko yàlla ab saxaabi génnul àdduna lu dul yàlla dafa muur ay bëtam te li gën a yéeme xoolal moom bi bi mu gumbaa am na benn pax benn kàmb gu nekkoon ci biir côté biir këram fa la doon dox ba tàbbi fa thumma bayna hiya tamshi bayna hiya tamshi fi ardiha ida waqaat fi xofratin fa maatat ci kàmb googu ci la daal di surux daanu fa daal di génn àdduna ci riwaayatu muslim Muhammad ibnu Zayd mu ni lan mu ni gis nañ ko mu ndeysaan mu nekkoon gumba di jafandu ci miiru Madina yi di ci jàppandu après moom lam daan wax nag moom arwa mooy wax ne jigéen googu naan asaabat ni dawatu said asabat ni dawatu said ni ñaanuk said de dal na sama kaw ñaanuk said dal na sama kaw kon mbokk yi mu nekk lu doy war yàlla ci yàlla musal tooñ kon tooñ gi mu tooñoon moo ko yóbbee lii moom arwa bintu ways ñaan ko Saïd ñaanoon ibnu Zayd ndeysaan bi mu demee bay génn àdduna nekk mag te gis nga moo tax ñaan gi dal na mais dafa tardé parce moo xam tax mu def loolu ci ma waaye laataa moo génn àdduna gumb na ci benn pax kamb goo xamante ni fa la fa lañ ko suul waaye tamit da doon jàppandu ci miiru Madina yi naan ñaanuk Saïd dal na ma ñaanuk Saïd dal na ma mbokk yi kenn ku nekk ci ñun da bàyyiwaat xel bañ tooñ bañ a tooñ moo tax nga war di jéggalu yàlla subhaana taala di ko jéggalu saa su nekk boo tooñee nga xam ne wax nga ci moom loo xamante noonu ah nga dem jéggalu ko boo jëlee alalu jàmbur na nga ko dem joxe kon loolu moom moo doon dar si tey bi jàngat bi yàlla nañu yàlla musal ci tooñ wallahu almustaan